sama kaa yi man xamuma bëgg léegi fi lu ma woo fi Omar xam naa ni moom ceeb ba war naa jeex Omar Omar Omar Omar Omar ah, allo Omar Fall wow mais camion bi waroon indi ceeb bi moom fu mu ne. ah mi ñëw mi si yoon waaw waaw waaw bu ñëwee kon nga woo ma kon wax ma ko daa yàgg ci yoonu torop di waaw xaar après ma woo Tafa Fall laaj ko ba xam moom fay tamit ndax camion ba ñëw na wala ñëwul waaye ñun li defuñu dara noonu la demee nag si tat bu essane dañu waroon si xool a jox nag gars essane ni naa sur dara maata de gars yi waaye amul tàppat gars yi ma jot moom dafa rek boo ko fekk mi ngi si yooyu ñu naan whatsapp ay whatsapp whatsapp whatsapp su ma ko yoroon tey jii whatsapp nga xam da ngay rek di wat xaalis bi di indi di di di dolli sa xaalis su ma ko yoroon tey jii duma ma sonn ah xaar ma war Tafa Tafa naa ko bàyyi sax Tafa moom su ma ko woowee sax du ko jot Tafa moom xam fu muy ne ma nii tuuti rek ba si kanam. ay ay ah. ma ne su yoroon whatsapp tey whatsapp ak man ni ma yore ba fexe ba gis whatsapp mënu fexe ba am whatsapp. leen booy. sama xale yaa ngi nii ah màggal leen màggal leen bu wér wér waaye màggal leen bu wér ah, booy toog leen toog leen nii yéen fan yëpp dama leen yittewoo toog leen nii toog leen nii yéen moom ku leen xool rek xam ne yéen ay borom affaire ngeen. yaa ngi am jàmm baax waaye ñu ngi am jàmm baax. naka naka tàngaay waaye ñu ngi nii rek. maa ngi gis nga ëpp rek sama ba léegi. waaye gis nga rek. Ah. moom bu ba léegi maa ngi toog fii am jaaxle trop. wala booy xam nga lan la bëgg. waaw hmm, wërsëg. papa yow li nga bëgg doy na waar rek. li hmm. nga bëgg doy na waar trop. xaar xër xër muy tafa fër dama ko doon wóor léegi sax moom gis nga ba amoon wërsëg. Ah. wóor ko ba yàgg. wuyu wuyu ko ba xam. allo waaw waaw waaw ci kanam maa ngi lay woo damaa jàpp. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw dinaa ko dis papa li nga bëgg moom li nga bëgg moom am na fi de mais jafe na fan yi moom dafa na trop chaud jafe wasap wasap nga bëgg da ngay watt rek di def sa sap lu sax loolu mënuma jafe xanaa du xëy waaw loolu El Hadj Fall de moom jaay moom El Hadj te loolu cher na trop te xam naa yow doo ko koy jënd yow bawal bawal nga yow rek léegi xam nga xool El boo xam li mu fi dese bari na bàyyi xool El Hadj bàyyi ma ko woo ko yi allo El Hadj léegi maa xamul gars jàmm waa ana wasa moom fu mu ne ah ma ngi fi dafa am sama benn papa bu ko yitte woon léegi fii nii mooy loolu noonu waaw waaw guy gaan Njaay waaw waaw waaw ah boobu ñaata nga koy dóore le grand commerçant rek waxu ko neen trois millions cinq cent papa oh loolu séer na trois millions cinq cent du baax loolu séer na yéen ñaata nga ko fay bàyyil ma jox leen millions rek waxal moom ba pare rek yow après ñu waxal moom nee na 2 millions de la si man 2 millions nee na 2 millions baax parce que Whatsapp temps dafa manqué. a nu ma dimbali ngir yéen. ah loolu la wax. léegi yow da nga fexe yokk sa loxo mu jëm la xaajal. boo boo boo d'accord ñu dem xëccal loxo ba mu ñëw ñu indil ko fii. sa kanam sama samay booy ngeen dama leen dama leen a wóolu. waaw waaw xaaral su d'accord ñun dinañ waxaale moom su d'accord danaa la kóol. waaw baax ay ay booy. dégg nga mu yëgoo ma de. papa nee na yow boo d'accord xoola dañuy indi wasa ba mu ñëw. lii danaan jàkk sa kanam ngay wax di dugg sa sax di dugg sa sax. kon sama xëy day gën a bari day gën a bari. muy doo lirik lii xamul ñu def. waaw may na ma jox leen 3 millions kon. 3 millions gàtt na xam nga nan ngay def. Hmm? léegi da ngay def 3 millions 500. bu indi la wasa léegi du yàgg. xam naa ne day ñëw. jàpp ko ci loxo bi. am problème am problème. am problème nangu naa nangu nangu naa. yow léegi 3 millions yi léegi yow taxaw nga. waaw ja yaa ngi moom fii moom waaw léegi indi nañ ko sel ko léegi balaa timis la ñu indil la ko. Hmm. du yàgg kon xaar ñu def noonu. waaw defal ma def loolu ngeen dem ñëw. waaw. lii sec la. waaw 2 millions. da ngay dem banque ba. waaw boo demee retiré ko nga ñëw. 2 millions tuuti na de. damay boo ñëwee dama lay dolliwaat yor naa liquide. Ah, waaw hmm. boo ñëwee ma dolli la damay ñëw nga dolli. waaw léegi wuyu ma. toogal fii fii nii. waaw bougé waaw ñu jàpp ci loxo ma sax loxo ma taxaw sa kanam. waaw toogal fii xaar la yaa ma tey sa booy. jeex na ma leen wóolu. waaw gis rek. boo ñu gisagul boo xaw a yaakaar di koo romb rek. wax ko Disa Samson romb gu la fii. waaw Disa Samson rek man ñëpp ma xam ci dëkk bi. waaw defal loolu yow. jeex xaar ñu dem ñëw. waaw gàpp ji xaar ñu nag. waaw. loolu dinaa la ko doon. nañ dem léegi balaa Paa bee wax waxee lii. waaw ñu retiré ko. waaw moo yor moo la demee nag ah, Baye lii doo la de Baye xaar. lii tee wax ma lii lay. man booy man ba léegi ah mii bëgg a yàgg de sa booy yi man sa booy ah, yi xam fu ne bu ba léegi booy yi ah, tuuti xaar booy yi ba xam xam nga

buydel mı? Ê, sao mất đùm Sao mất đùm cười cười Cười hoài cười Cười Cười Ba bật nó đẹp Ờ mất Dành dành Dành xin lỗi nè Bên chồng bà Đã dư phục ai vâng. khá là yu Gạt đua sập Papa doom man duma sa murum papa bëgguma la sa doom bu def sa sa sa baay bu jël 2 millions def ko ci whatsapp di di la laaj ndax whatsapp niwul foofu ngay ree ay papa whatsapp xolal papa moom laa doon def nii xol application la mu ngi nii gisoo l'application nga sa téléphone nga koy def papa mu xool lu si bind whatsapp papa xanaa doo mënoo leen wow wow wow wow eh, boy whatsapp na noo waay What's up, my boy? Me Nité, wax ma li